dal leen ak jàmbook yam tax na di nga xam ne yéen a nuy siifur ba tey ci xibaar di leen ñaan ngeen abonné fii ci sunu chaîne bi di Yatal Vision ngir lu ko mën a jëmale ci kanam niki noonu nag tey jii dëppook fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2023 niki Ousmane Sonko ni mu ko waxee woon rek te bëggee woon ko noonu mu di mars boo xamante ne bi day wër réew mi kàpp ci département yi communes yi régions yi niki noonu nag moom Ousmane Sonko fële ca cité kër góor gi di këram gi nga xam ne fa suba gis nan ne dar nan ko wër ko kàppaliki takk der yi moom mii di Ousmane Sonko nag ñu aaye ko génn lu xeetoo ko mbedd mi nga xamante ne bi fa la war a jaare génn pour doxe ay yitteem lu mel noon nag ñu xañ ko àq ak yelleefam ji nga xamante ne bi amee na ko waaye it lenn ci nervi wala lenn ci ñi nga xamante ne bi mooy ay sécurité Ousmane Sonko yi nga xamante ne bi ñoo war di ànd ak moom saa su nekk mayun kenn koo xamante ne bi it da di ab wala militante nga dugg fi nga xamante moo di ci kër cité kër góor gi foofee ca Ousmane Sonko ngir mën a ànd ak moom loolee nag ñu bëree bëri ñu ngi koy naqarlu ci biir réew mi tey it mi ngi xewee foofee ca cité kër góor gi ca kër Ousmane Sonko loolee waral nag euh, génn gi nga xamante ne bii war nañ koo génn fii ak ay quelques minutes li ko commencé ci quinze heures ci bëccëg ngir woyal li nga xamante ne bii mooy marche pacifique bi nga xamante ne war naa am ci mboolem régions yi ci biir euh, Sénégal quarante cinq départements yëpp Ousmane Sonko nag xaj nañ ko ak àqam ak yelleefam foofee ca cité kër góor gi ngir aaye ko génn ni ki dem fu ko neex wala wax lu ko neex it loolu lépp it lu ci mënti am takk der fees dell ca la xamante ne bii moo di cité kër góor gi ngir ak génnam ñu lànkal koko euh, dina leen toppal xibaar yi foofee ca cité kër góor gi lu ci mënti am des nga leen ko indilaat fii ci Yaatal Vision